ziar bu baax mën nañ la Diouf ziar naa la namm naa la lool la raw lu bari ah tey costume bi macha allah rafet na lool. moo référence maa ngi lay ziar Aline. bëggee naa la bu baax di nuyu téléspectateurs yëpp di leen ziar di am mbégte bànneex di ñëwati fii ci plateau bi nga xamante ni macha allah àdduna bi ñu koy xaar muy rubrique musique ci petit déj maa ngi dem nag ba liberté 5 di nuyu Fatou Ba picco picco sama sët yi nekk foofu nag ndeysaan maa ngi leen di nuyu ah, ah, ki nga xamante ni mooy Sadibou di nuyu ki nga xamante ni mooy Kumba di nuyu Fatou Awa Mariama ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar jamono yi ñu ngi kër ga toog di ma seetaan donc maa ngi leen di béggee di béggee sëñ Asek borom ndigal ak sëñ Cheikh Fall Mbawar Fall tey nag dañu boo xamante ni dafa spécial Fatou Diouf mm-hmm. kooku mooy Ambroise. Ambroise Ambroise nag jamono yi temb dafa bokk ci SODAV. waaw semaine bii passé heure bii bokkutoon SODAV. mais fi mu nekk nii dafa bokk fa ñuy tegee di nas di nocci. <laughs> waaw affaire yi nag tegoon lool ah. metti woon lool comme coach parce que dañ doon wax quatrième mandat dañ ko fi <laughs> tere. te troisième mandat bu dina am. waaw kan moo ko am ngóone. troisième mandat lañ doon aaye fa quatrième ah, non quatrième. non troisième troisième lañ doon aaye. waaw troisième lañ doon aaye. léegi quatrième ñëw ah, quatrième. quatrième mandat mais c' est inadmissible. Augustin Senghor mu ngi ci quatrième. mais c' est pas normal. kon loolu a nangu. je te rek mi ngi ci quatrième mandat. waaw waaw fu mu nekk nii. mu ngi ci quatrième mandat bu laajee muy cinquième mandat. léegi nag Ambroise moom moo fi teew tey. Ambroise balaa ngi dugg si débat bi dañu lay bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi. salaamaaleykum maa ngi nuyu euh, waa Walf. respecté Walf loolu aussi nuyu Sénégal gépp mm, nuyu waa Casamance la où je viens. Mm-hmm. waa Ziguinchor sama quartier sur papa yi nuyu ma maman qui est malade yàlla na ko yàlla wéral. amiin et di nuyu jinne patriote bi nekk fii. Mm-hmm. waaw parce que grand bi fi jógee léegi nee na am na benn jinne bu fi dëkk. waaw foo toog maa ngi naan jinne patriote la. jinne patriote jinne patriote respect. <laughs> <laughs> moo tax moo tax mu nuyu ko. Ambroise waaw nuyu waa Sinaprox aussi. waaw ñu ngi leen di respect. waaw léegi nag Ambroise. ginnaaw nuyoo nga ba pare dañu bëgg ñu dem ci affaire yi gars yi xam bu baax a baax ce qui s'est passé là-bas Ambroise amoon na fa problème yoo xamante ni amoon na soraanoo fa lañ njëkkoon def vote bi. dama bëgg nga ñëwal ma ci Sorano keroog la fa amoon ak cooki yaag amoon na xeex. Mm-hmm. arrêté nañ vote yi ay heure ba ñu mujj voté fa la falee nettali ñu Sorano nu mu demee. <laughs> Pa Ousmane <laughs> ak cooki yaag affaire yooyu. nekk fa am ak malaise am ñu fa am malaise. Ah. am na bu mag bu fa am malaise. artiste bu mag bu fa am malaise. allez allez ñëwal. ok xam nga Walf moom. Mm. boo déggee ni da ngay ñëw Walf rek déjà il faut nga am fit. pour ñëw Walf parce que ah. Walf Walf fit fi am fit. waaw eh, man représenté naa fii ci biti. Mhm. di xeex injustice. sunu ajuma ba. waaw dernière ajuma bi Macky Sall waxoon day repousser élection yi. Mhm. bokkoon naa ci patriote yi wàccoon ci terrain bi. Mhm. waaw amoon ci cause. parce que ànduma woon ak euh, li mu doon def injustice boobu ma doon xeex ci réñu Macky Sall injustice boobu laay xeexaat ci culture bi. te dafa dafa intelligence. intelligente bu grave moo fa moo nekk ci injustice boobu noonu. man maa ngi may doog a fal di saluer les danseurs qui m'ont élu. di saluer aussi euh, l' accompagnement du syndicat professionnel des artistes de la culture sénégalaise muy euh, SYNAPROX ma ànd ci ak ay grand yoo am déterminant ak engagement. bu leen neexoon ñu toog jàpp seen njàmbur ñe du ñu créer benn syndicat équipe pour l'histoire du Sénégal. Mm-hmm. culture di doog a am. syndicat ci Sénégal. ñu bokk CSA maa ngi leen di nuyu aussi. Uh-huh. Euh, confédération des syndicats autonomes du Sénégal. muy ay nit yu baax ay grand yu baax yu fa nekk. Uh-huh. nekk Sénégal uniquement rek pour la di xeexal liggéeykat yi. Uh-huh. xam nga ñu les acteurs culturels. on a des problèmes. surtout étant euh, un danseur boo nekkee danseur. tu n'es pas considéré du tout. artiste en général kenn considéré wu leen kenn mosu leen considéré amuñu statut ñu dara. syndicat bi dafa judd pour loolu. bi ñu xamee ni dañuy dem assemblée générale les gars sont ils sont ils sont demandés ñuy jiite syndicat bi nañu. il faut ngeen postuler wu ci secteur yi nekk. waaw. Mhm. fu nekk ñu am fa candidat. waaw ah, yow nga postulé. waaw man je voulais même pas parce que. xol bu tàng nga ciy jëlee boo demee ba ci biir découvrir li nekk ci biir sa xol day jeex mm-hmm. te man dañ may dëkkalee ne da nga tàng mm-hmm. mooy leen tànguma de man maa gën a sedd guy glace mm-hmm. sedd waaw dabara saay boo duggoo rek bon c'est un honneur aussi bokk ak moom plateau il est verdict waaw euh, mu respecté ko loolu mais des fois ma mere ko aussi <laughs> c'est normal. waaw parce que waaw léeg-léeg sax dinaa tiré ci moom te xaw ma ko waaw étant un patriote. waaw défendre cause bi mooy défendre. mais à chaque fois léegi mi ngi souligné ci Azalaay président Diomaye. waaw Sonko. jub jubal jubante la ñu wax li mu wax léegi ci Azalaay métti na ma trop. bu fekkee partenaire yooyu dafa nekk Azalaay nekk loo xam ne du dugg du yoon ñun dañ koy dénoncer loolu moo ñu boole moo tax ñu adhéré Pastef. di dénoncer loo xam ne injustice la. Mm-hmm. keroog Sorano nu mu demee. Sorano waaw <laughs> xalaanoo déjà SODAV rek. warul jël une journée une demi journée pour organiser assemblée générale. Mhm. Mhm. ci Sorano de huit heures à quinze mhm. bi ñu bi ñu excès tak lu ñu njëkk a woo. mooy la fekk ñu ñu wax il faut ñu gaaw temps bi. parce que waaw voilà que salle bi Sorano lu ñu ko loué. waaw c' était pas normal du tout nga war a dajale tous les acteurs culturels yi nekk ci Sénégal bi. pour une assemblée générale. ngeen ne dañ koy def huit heures à quinze da bëggoon taf tafal. déjà balaa ñuy egsi rek balaa ñuy commencé rek midi jot na. Hmm. prise de parole assemblée générale la ñuy wax nañ ko yaatal ñu bàyyi acteur waaw hmm. et xam nga da ngay egsi hmm. fàtte naa rapport bu ñu génnee ci deux mille deux mille vingt trois bi nga xam ne rapport bi normalement dañ ko waroon na génnee deux semaines avant. bu ko defee. ngeen am ko sax voilà gars yi am ko mun ko saytu bu ñu ñëwee ci assemblée générale bi am ci ay argument mais ci buntu Sorano boo duggee avec ta carte ba pare dañu dañu exiger ku amul carte de membre SODAV du dugg <laughs> te kenn te kenn ku ci nekk xam na xam na SODAV problème mu carte yi waaw da ngay déposer carte balaa nga koy am da ngay daw seen ginnaaw daw seen ginnaaw bu mu jógi da ngay mujj découragé mm-hmm. critères yi ñu teg mm-hmm. ci am carte yi c'est très très très compliqué te ñun notre secteur yàlla def ñu nattoon ñi ci am yenn maturité yi ak yenn intelligence yi. bëriwul bëriwul. Mm-hmm. ñu egg Sorano mu am tiraillement. Mm-hmm. parce que ñoom dañu présenté seen programme li ñu jot a def après bëgguñu kenn jël parole. Mm-hmm. ñun syndicat bi on s'était di que. il faut ñu jox la parole aux autres bu ko defee. loolu waral cooki bi quoi. voilà loolu waral cooki bi léegi nag sunu sunu sunu benn membre. Euh, Bachir que je que je salue. un grand courageux très culturel et cultivé. mu bàyyi lépp ñëw toog fii pour xeex injustice bu nekk ci culture bi mu ànd ci ak ñun jël parole gars ne ko duñ ko jox ka parole bon déjà rek assemblée générale xawma fu ñu ko teg déjà rek assemblée générale nga ñëw gis des camions de policiers yu taxaw ah bon des gros bras comprendre mais dama ne man assemblée la ñu ñëw wala la ñëw ñu assemblée bi tey dafa waroon nekk fête quoi parce que dafa am benn ceex sortant ak benn ceex rentrant bu war a dugg ñooñu la ñuy ëllul fête la war a nekk quoi lekk naan xappi et autres tu comprends mais nga ñëw gis préparation bi disposition bi fa gars yi teg sama xel dem ci manifestation yi ñu jóge woon quoi ma ne waaw mais c'est compliqué ah, mel ni bi may dem ah, ci procès Ousmane Sonko ba euh, dernier procès fii ci tribunal loolu la ma image image yooyu la ma joxoon quoi mooy voilà may leen grave on dugg ñu nu Bachir laaj parole ñu ne ko doo jox parole syndicat bi jóg révolté wu ñun ñëpp ñu jóg révolté wu ñu am fa ay tiraillement xëccoo am ñu xam fii comprendre nga. ngóob yi ñu mi ngi tane ah. waaw waaw mi ngi tane bu baax na forme bil bil jaxu ngir salut de passage ndeysaan <laughs> et moom. carte am à chaque fois daan ñu carte baa ngi ne carte SODAV bi rek li ñu bind ci ginnaaw mooy dañuy dañuy dañuy naan la carte bi c'est pas professionnel. Mm. c'est une carte mais c'est une carte qui n'est pas professionnelle du tout loolu bëgg nañ ñu indi ci ay clé vraiment. Mm-hmm. tu comprends. la carte bon pile waaw pile fàtte na carte am ñëw bon négocier na ba dugga mm-hmm. mën na ko tegoo ko ci yoon. da nga jub jubal jubante amuloo carte waroo def benn négociation pour dugg. Mm-hmm. mais ces amitiés permettre na ko mu am accès si bi yàlla def yàlla dafa waxoon ne du ko fekkee mu def fa benn malaise bu coow bi amee gars yi yóbbu ko mais après sant yàlla quoi. beneen bi may déplorer mooy. Euh, côté musique. bi ñu commencé voter. musique y a beaucoup de monde. xam nga ka on parle de de culture. musique ñu ko ci ëpp doole bëriwul. Mm-hmm. wala moo nekk première position. Mm-hmm. musique bi rek dafa jël temps. ci temps de vote bi. Mm-hmm. avant musique dañu pare rek ñu ne ñu saal bi dañ koy libéré ñu yëg ci kaw. man bu ñuy bu ñu waxee dañuy yëg ci kaw pour man ci benn salle la dem. moo ma jaaxal. xaalis bi nekk Sodav bi nekk foofu ak seen budget bi mënuñu louer Sodav ko toute nag. c'est nga ak yooyu ñuy ñuy wax dóor mu daanu et ñu fal la même personne et puis jàll ci leneen. et puis wax bi le directeur sama grand bàcc li maa koy ziar. Mm-hmm. moom comme moom moo nekkoon maître de cérémonie moom dafa waxoon toogee toogee toogaanu directeur. Mm-hmm. waaw incarner sa sa posture mais voilà tel n'est pas tel n'était pas le cas. Bathily waaw moom moo doon diriger séance bi. tu vois ñu jublu ci vote yi musique jàll après ñu yéeg ci kaw ci hall bi Sorano ci kaw ci hall bi. Mhm. fa la gars teg ay table artistes yi kenn amul foo toog ku nekk danga nga doon taxawut mu tànk jër. Oh. y avait pas à manger butéelu ndox lañ lay jox. lu toll ni sodaaf. lu toll ni sodaaf. bon ñu ñu sëm ñu bëri dañu ñibbi ah ñu bëri dañu découragé ba ñibbi ñu bëri ñu waroon voté voté ñu ndax condition yi ñu fa nekkee woon waaw mm-hmm. ndax condition yi ñu fa nekkoon bon mm-hmm. ñun syndicat bi comme dañu déterminé woon déterminé woon tellement que on vraiment mm-hmm. suñu candidat yi ñu téye suñu ay membres jaa fekk ñu am quatre membres yu jàll ci syndicat bi yow ak ah. man Djibi Guissé Roxeña ak euh, grand Babacar Diop Mm-hmm. Rokhaya Niang moo nekk ci interprète théâtre grand Babacar Diop moo moo nekk mm-hmm. dramatique mm-hmm. Djibi représenté musique man ma représenté la danse bon jaa fekk euh, ñu ñu ngi fa jógee presque ay ay ay ay dix-huit heures léegi nag ba loolu jeexee ñu avancé ñu war a nag ñëw SODAV ngeen ni yéen da ngeen di dem sitting ngeen dem sitting ba yéen fekkaat fa policiers yi taxaw les groupes ra taxaw ñun leen du ngeen am accès du ngeen dugg. xam nga assemblée générale bi dañ ko def jeudi. Ah. na kenn. <laughs> jeudi la war waaw man dama am benn bi ma gars yi di xoolee. <laughs> et que waaw j'en suis fier parce que identité bu positif la parce que damay bañ rek. Hmm. man injustice bëgguma ko te kenn du ma noot. Hmm. waaw man la personne je la vois comme la personne que tu es et comme la personne je suis. Hmm. c'était ça à ma grande surprise. dañu voté jeudi ñibbi. vendredi guddi gi ñu envoyé ñu nañu eh, il faut ngeen ñëwaat assemblée générale extraordinaire le lundi pour ñu élire. ah waaw PCA bi. mooy lundi bi mooy lundi bi on mhm. n'avait pas le temps. Mhm. tu man ma ne. da leen bett sax loolu waaw dañu bett. Mhm. on n'avait pas le temps ma ne d'accord. syndicat bi aussi nous nous sommes préparés man pour man dina am 4 3 ba 5 candidats à ma grande surprise. Jibi rek laa gisoon ni moo postulé may saluer son courage aussi. Jibi gise waaw en sachant que déjà benn. PCA bi pouvoir bu mu am dafa bëri trop suma sœur Ngoné Ndour il faut mu revoir à texte nekk mënoon si waxtaan bi assemblée générale bi ba changer statut merci beaucoup. def ko mu gën mais mais ñu parce que ab waxtaan bi. Ah, mais nag dégg nga leen taf tafee da nga wax rek ma comprendre. dañ ñu paqueté waaw taf taf taf tu après xam nga euh, et puis ci biir euh, benn tierce muy génn. Mm-hmm. membre yi 36 personnes la war a nekk. Mm-hmm. administrateurs yi. Ah. benn tierce bi muy génn. mooy douze personne yi. Mhm. yeneen douze nouvelles personnes dugg. vingt quatre yi fa la ñuy nekk ñoom une bougent pas. pourquoi ils bougent pas. je sais pas peut-être comme bokk naa ci conseil bi léegi. yenn ñii dinaa ko dénoncer. Mhm. ça c'est sûr et certain. moom bu la ñoom ñoom ils sont figés à jamais neex duñ fa génn. loolu lay nuru. mais statut lan la wax ana yéen li ñu dans les normes statut yi waxul loolu. Euh, tiers sortant maanaam euh, kii euh, day bu ceex bi. génnee après prochainement beneen ceex bi mooy génn bi day génn. beneen kii bi beneen ceex day tourné quoi trois ceex la waaw. trois ceex trois fois plus quoi muy foofu xaw ma nag seen texte lan la wax. mais yow naka mën a nekk si mbir mi te xamoo texte yi lu nekk ci biir. moi je viens d'arriver. mais les autres yow sax mais ñeneen ñi quoi. moi bi maa ngi jàngat. waaw hmm. statut SODAV li mu wax rek ma xool lu ci anormal ma appuyé lu ci anormalul. dama koy delloo sax man. sa mais avant nga ciy dugg avant ngay dugg ci SODAV. Mhm. Euh, bi nga nekkee ci biti yaa ngi ci soog a dugg. Mhm. lan moo tax ba nga décider pour dugg ci beneen affaire bi mooy lan nga gis ci lu anormal nga xam ne yow yaa ngi dem te di ko xeex lan la. benn critère yu ñu lal ci ni artistes yi waree am seen ay carte de membre SODAV c'est très compliqué. Mhm. fii suñu institution culturelle yu bëri duñu ñu les artistes. Mm-hmm. pour seen structuration c' est tellement compliqué. bien mm-hmm. loolu déjà dama koy déplorer te dinaa ko mm-hmm. dénoncer bu ñu ko mënee xoolaat ñu xoolaat ko beneen bi mooy durée bi. durée bi carte bi di def pour nga jot ko man j'ai déposé ma carte. toog naa presque deux ans deux ans et quelques sama carte di doog a génn. di dem. ak keneen ak keneen ak keneen moo tax dans dans le monde de l'art artistes yi koo ci wax def leen le tout ngeen am seen carte de membre SODAV dayaa na non compliqué mm-hmm. gars yi lay wax lii utal lii utal lii nga dem ku la war a jël du ko du fa nekk doo ko fa fekk da jaabante mm-hmm. demal kii ñëw pour une carte yooyu yëpp euh, am ci pour une simple carte balaa nga kaa am problème la. Mm-hmm. carte moom bu dee ñun artistes yi. il faut nga am attestation. muy wane ni yow da ngay Cheikh Tidiane Gomis animateur la invité na ma benn rajo. ñëw naa def foofu ba il faut mu bindal ma attestation wane ni kii artiste la maa ko invité. léegi bu ma attest bu attestation boobu amee si ñu si ngay dem nag yóbbaale ko ak sa di d'identité ak ñaari photo ñu soog la mën a defal carte. léegi nag nekkatul loolu autant jamonoy BSDA. Mm. léegi da ngay ñëw foofu si sur place lañ lay photo sur place lañ lay photo mais problème bi mooy aussi rajo yu bëri ak tele yu bëri da nga fay jaar artiste ñu invité la nga dem ci direction ba mm-hmm. pour ñu defal la li nga xamante ne mooy attestation pour artiste bi rajo yu bëri dañ ko fiy bañ man fii ñu bëri mere nañ ma fi mm-hmm. ndax invité naa leen fii ñu pare ni ma dama bëgg am carte soda dimbale ma nga dem wutal ma euh, kii attestation wane ni jaar naa fa da ngay yéeg si kaw du am benn résultat ah. loolu dañ ko war a d'accord muy beneen problème lan laa bëggoon laaj tiers sortant yi xam nga normalement comme vous 3 fois 12 la. Mhm. chaque fois 12 day génn. 12 dugg 12 dugg bu 12 yi duggee yeneen 12 yi des. li ma bëgg comprendre mooy 12 yi nga xam ne ci la Ngoné Ndour bokk. Mhm. normalement war na bokk ci tournée bi. Mhm. boo xam nga gars yi 36 personnes la la la la administrateur yi. di xam nga est-ce dégg naa li nga wax. problème bi mooy en est que loolu ñëpp di déployer ñun ñëpp ñëpp loolu la ñuy kaas. la fekk ñuy changer 12 ba pare ñun su ay 12. 3 personnes ñëwul woon. donc cela veut dire que yeneen trois personnes yi dafa yokkuwaat ci fekki 24 yi ça fait 27. Mmh, d'accord waaw léegi 9 personnes ñoo dugg yu bees. tu commences ko def ça aussi c'est un problème il faut ñu xoolaat texte yi xool parce que loolu yëpp dañ leen ngoone Ndour moo koy diriger. moo koy piloter waaw moom moo koy piloter. c'est c'est c'est elle qui décide. statut yi bon boo ko laajtee dañ lay wax parce que nekkul nekkul ci surtout SODAV. parce que saa waay yow tamit ñii dañ leen fal yow dañ leen fal ci loo xam ne yow yow maîtriser woo ko sax <laughs> koy gëstu. non mais waaw boo demee nga xool statut yi gis yu garaaw yoo xam ne yaa ngi ci biir mais mais nan nga da nga koy nangu da nga koy nangu xam nga yow amatoo soo. non ko nangu parce man je suis conseiller. mais statut yi ñu wax ba pare. waaw ci waaw non xaaral non waaw xam nga mënuma ci dara loolu ñëpp ñi fa nekkoon ñëpp ñu bëri kaas nañ ko mënuñu ci dara Mm. mais léegi comme comme am na conseil yu bees am na neuf personnes yu bees yu dugg. waaw man dinaa incarner mon rôle. lépp loo xam ne gis naa ko ci statut yi dinaa ko proposer. Mm-hmm. d'accord pour ñu changer ko bu ñu ko mënul changer. Uh-huh. dinaa ci revenir syndicat bi syndicat bi porté xeex bi. léegi fan lañ zone Ndour ba pare quatrième mandat léegi lan moo nar a nekk taxawaayu SYNAPROC. SYNAPROC li war a nekk taxawaayam actuellement. waaw est-ce ngeen ci dara comme fal nañ ko ba pare. waaw ñu ngi ñu ngi jaar fi ñu war a pour def euh, la. bu dee destitué ko xoolaat waaw non ñu xoolaat. statut bi ah statut bi waaw bi yenn réglement yi. waaw yoo xam ne baaxul la fekk douze tiers yi douze douze benn tiers bi rek di génn douze personnes yi di génn. Uh-huh. vingt quatre yi toog fa boo war a voté. ils sont fixés ils sont fixés à jamais quoi. boo waree boo waree voté ñun 36 24 yi. waaw 12 lu mu mën ci 24. yow léegi naa yaa woteel ji bi. di non man man man <laughs> man man syndicat bi syndicat bi moo a fal. waaw. Mm-hmm. c'est bien waaw pour. quitte à ta conscience man ñoom xam nañ ma sax je viens je vote pour Djiby et je m'attendais que déjà vote rek ni mu demee ca SODAV j'étais pas du tout d'accord parce que le vote il est secret. Mm-hmm. da ngeen ko waroon lijjanti balaa yéen di commencé. non amuñu le temps pour lijjanti ko. Mm-hmm. parce que yow yow dañ la dañ la fal jeudi. vendredi samedi lundi ñu convoqué la pour nga ñëw def assemblée générale extraordinaire nga jubli ci ay vote xam nga loolu mën loo ko liggéey. te yëgaluñ la ko avant. waaw kenn yëgaluñ la ko avant. Mm-hmm. da nga ñëw dugg war a voté booy voté ci biir euh, euh, bureau de vote bi. Mm-hmm. am na benn gros bras bu fa taxaw. Mm-hmm. nga dugg ci biir nga fekk fa ñaari huissier scrutin bi warul am kenn waru fa nekk le vote il est mais da ñëw duggu laa fii. Ah, huissier bi verrouillé lépp. waaw huissier bi da nga ñëw dugg mu tàllal la ticket ticket ngóone ticket bi. waaw bu ñu bind ngóone bind bi ñu jibi nga jël ñaar yëpp man dama ñëw mu tàllal ma bu ngóone ma jël bu ngóone xool muy ngóone ma delloo ko jël bu jibi xam <laughs> nga lem bu jibi xam warul xam ni kan laay votel mais xam ma kan laa votel mm-hmm. ma lam bu jibi voté xotti bu ngóone sànni tu vois ñu woon defee noonu dañu ko def comme scrutin normal. normal dugg ñaari kii yi boo paree. Hmm. bu la neexee sax yow beneen bu ngóore bi nga nga bu ne yow ngóore nga wote. Hmm. bu jibi bi nga dugal ko sa poche. génn ak moom voilà ñaari huissier ñoo fay taxaw ñoom ñooy surveiller. léegi nag bañ demee ba joxe résultat yi. 36 33 yëpp dem ak ngóore ñeneen ñi nga xamante ni ñoo voté ngóore seen seen comportement keroog na la demee woon. bon man bettu ma parce que déjà ma ma dugg ci conseil bi rek xam naa fa ay grand yu bëri qui connaissent mon mon caractère. Mm-hmm. déjà rek commencé nañ ma approché ku nekk naan ma non ngoone gars yi dañ koy sànni xeer nit ku baax la du jël salaire am 2 millions lay fay ko mais bu mu duggee Sodav ba léegi du jël 2 millions yi lu mu def fii kenn def ko fii patati patata. di la ma waaw ma ne leen man ñëw naa fii Sodav pour ay cartes indi ay danseurs pour ay cartes dañu delluwaat. Mhm. que ku ñu waroon gérer loolu gisuñu ko ça déjà c'est dama jàppante SODAV ba toon sonn ça c'est déjà un problème yéen ngoone mën na liggéey yéen ci seen biir ngeen santer seen bopp mais ngoone warul liggéey pour yéen parce que yéen da ngeen koy tagg rek mm-hmm. mais li gën a métti mooy ñi nekk ci mm-hmm. biti kenn rafetluwul taxawaayu ngoone ci SODAV mm-hmm. mais loolu nan lañ ko ba falaat ko kon bon ah, on était 36 33 yi ñoo ko fa tel 33 moom la ñu àndal ñun suñu 3 quatrième membre bi ñu am bi bokk SODAV xam nga normalement suñu carte membre yi dañu waxoon votel jibi mais kenn ki dafa votel ngoone au lieu ñu am suñu quatre voix suñu trois voix lu ñu am mooy maanaam man maa voté ak jibi ak grand Babacar Diop waaw démocratie la nag waaw non ça moom man je suis démocrate non mais d' mais règle démocratie à la base da nga ko war a teg ba mu set ba nga xam ne. Euh, alors ñu dem ji. mais ni ñu ko defee noonu forcément ngoone lu day gagné. non fonctionnement vote bi moom fii au Sénégal. Mm-hmm. li nga wax moo ci nekk y' a des gens yoo xam ne dañuy dem assemblée. faalewuñu texte si nangam ñoom daal dañuy ñëw rek voté loolu mooy kii mais man sama question fenn la mooy yow bi ngay dugg euh, kii SODAV yaa ngi doon gis sa bopp. non parce que man je suis un danseur. danseur du am dara. non danseur commencé gu ñu fay droit de voisin bu danseur loolu it li ma war a xeex la. parce que hmm, depuis. voilà quatre ans cinq ans ñu ngi ñuy sensibiliser. Mm-hmm. que ñu ñëw ut suñu ay carte membre hmm. danseurs yi ñu bëri am nañ seen ay carte membre waxal non waaw loolu li bokk ci sama liggéey parce que depuis depuis depuis SODAV et SODAV hmm. yàgg nañ fa am ay représentant moi même je me pose la question ma ne man suñu représentant yi ñu yàgg am ci danse bi hmm. lan la ñu lan la ñu liggéey SODAV par rapport à la danse et les danseurs man j'ai liggéey bu mag moom mooy xaar biir SODAV parce que xam naa ne moom je vais taper fort par ñu droit de voisinage bi kañ lañ ko war a fay ak naka lañ koy fayee ko. Mm-hmm. parce que quand tu sensibilises aux danseurs dem leen ngeen uti seen carte de membre ay danseurs dem uti seen carte de membre. ñoom que <laughs> mais Aliou. mais budget ne avant si si eh, ko laajee. da nga wax ko doyee bi. faut nga bind benn lettre adressé ko adressé leen ko ñu la koy doog a envoyé. non c'est pas bon SODAV il faut dissoudre la SODAV. Ah, c'est loolu xam nga xam nga la. non SODAV de la culture impliqué wu ci li nga di choisir day choisir ay directeur PCA pourquoi mënu koo def ñu jël structure mel ni SODAV rek bàyyi ko ci genre dafa mel ni moom doo amul structure voilà dafa dafa mel ni. ba pare di nommer seen PCA di nommer doy di nommer mais moom dong la gis. ba pare SODAV dafa mel mooy dugg foofu ci ci ci ci budget donc état bi notamment le ministère de la culture dañ ko dañ ko war a gérer dañu war a nommer seen PCA. non il faut ñu dugal bi nag wala ñu xool daal nu ñuy def. il faut ñu dugal ci seen loxo man déjà. en tout émission bi mi ngi ci. est-ce que kii ngeen sollicité ngeen état ci affaire bi. waaw waaw gisee nañu ak le secrétaire d'état buy représenter la culture. dernier mot bi ngay rek lan la. parce que ma ko support mënu ma ko nangu. parce que dafa def c'est pas normal dafa def c'est injuste deux mille dix-huit. deux mille dix-huit quand même deux mm-hmm. donc dugg na ci quatrième mandat am. donc voilà mais ay ñoom grand papa Cheikh yooyu grand yooyu. ay ñoom grand yu mag yooyu. grand yooyu am yooyu grand yooyu a mettre Mag Faye par exemple. grand yooyu ñoom kon nii rek lañ nii rek seen expérience amul benn njëriñ. non ñooñu laa wax dañ leen war a mettre en avant. Ngone Ndour quatre quatre c'est trop. c'est ko woon falaat ba pare douze tiers yooyu tiers boobu ngeen di def noonu 24 yi lu tax ñu fixe moo ma jaaxal question bi ñëpp la ñëpp di posé li nekk dinañ ko dinañ statut bi dinañ statut bi bi li ñu wax comme yow li ngay déploré nii statut bi loolu la protégé merci léegi ñu bàyyi la nga tàggatoo man man daal dinañ tànte xool léegi lan ngay tëjee quoi dernier mot bi ñu tàggatoo. mais Alioune. waaw ah. teg nga ma soog de ci xamoo texte bi xamoo texte bi. xamoo ah, texte bi non parce que ñun xamuñu ko sax non parce que waruñu leen ko dudd. ok ok non non non mooy mooy dama la wax rek pour nga xam ko. da nga ñu adressé lettre ñu envoyé la ko il faut ñu laaj leen nga koy donné man jeudi laa. yaa ngi soog a ñëw maa ngi doog a ñëw. dinaa ko léegi lan ngay tàggatoo dinaa xam li may tàggatoo mooy nuyu waa Sinaprox nuyu Walf que j'ai défendu fortement waaw taxaw naa fii ci bunt bi représente Paul Waf hmm. et puis euh, ñaanal euh, borom kër gi man il m'a beaucoup inspiré am na benn kàddoom boo xam ne hmm. à chaque fois bu ma jublu ci direction wu révolution rek kàddu boobu day dellu siwaat ci sama bopp mooy fexe leen ba seen àq ak seen ay yelef ngeen jëlal ko seen bopp seul le peuple est pouvoir. waaw mhm. ah, loolu moom li ma li ma denc. sama dama koy dama dama koy ñaanal. remercier Pape Ousmane. Eh, waaw yow xam nga tu es un grand monsieur. remercier syndicat bi aussi. xamal na les danseurs waaw tenez-vous vous ma dugg SODAV. lépp loo xam ne rek da ngeen ko wax a am comme ay privilèges ci SODAV. dinaa ko xeex dinaa ko dénoncer dinaa ko wax syndicat bi aussi lépp loo xam ne da koy xaar ci ñun rek. Mhm. ci conseil administration bu SODAV dinañ ci taxaw. taxaw bi ñu ci war a taxawee te duñ ci am demi mesure duñ ci dellu ginnaaw lancer un appel ci président son mhm. excellence Bassirou Diomaye Faye ainsi que le PM. Mhm. le président du PASTEF. ñu ngi am kii maa ngi gis Yoro Ndiaye. en tant que en tant membre du du SODAV dafa bëgg a intervenir xam naa nañ occasion bi pour am ko. il faut l'inviter Yoro moom laa bëggoon wax nii ko sekk déjà <laughs> na la Yoro bii di ñëw nga ñëw fii toog sur le plateau avec ta guitare